di ñaan ci bis bu tedd bii kilifa bu tedd gi nga xam ne moo waral bis bi du suñu maam soxna May mun a suñu borom def njaboot gi ñu fi bàyyi yàlla yàggal leen fi ba ñu yàgg wéyal bis bi bis bi rek misaal la ñam doon defandoo leneen te loola jëm ci yàlla defe naa ne loola fàtte nañu te bis bi day gën a xumb di gën a màgg wax kon noo ngi sant bu baax itam di ziar Cheikh Sidi Mokhtar xalifatul am li tarixatul muridiyya ñaan yàlla wéral te boole na moom ba yéene di ma am ci Sëriñ ñu ànd ko ak moom ba mu mot li naal yi yëpp eggalewaale naal yi ñu ko jiitu woon euh, ngi lay sant bu baax ci exposé bu leer bii nga def ci tarbiyatul islamiya ak ci citoyenneté euh, ni nga ko waxe noonu ndax tarbiya bi war a doon éducation war ànd ak xam-xam tàggat doomu aadama bi yar ko defaral ko àddinaam defaral ko àllaaxira yar yépp dañ dul jëme noonu ba tax nga wax ne benn bu bo boolewul ñaar yooyu am na lu ca man gi te sunu sang xaadimu rasul matale ñaar yépp kon li ci ëpp solo mooy am nanu bànqaas buñ jàpp fu nu wéeru foo xam ne daay wéeru ci yàlla te boo fa wéeroo doo daanu kon li ci mat a seet kay mooy ndax état des lieux bi nu toll fan la toll muy ndax réew mi nu nekk nga wax ko mu tàmbalee ci muy citoyenneté mooy euh, loo rëdd wutal ko ay frontière ay doomu aadama dugg ci biir ñu bokk même destin mel ne gaal gi bokk nga xam ne bu liggéey ñëpp dégg bu sowee ñu sowee ñu tuddee ko Sénégal éducation tarbiyatul islamiyya boobu fan la fa toll ak nan la fa mel ak moom fa nekk kon loolu mën naa gëstu te ku wax citoyenneté wax devoir wax qualité waaye waxit droit te ginnaaw ci biir réew moomu nga xam ne dañ ko rëdd tudde ko Sénégal jullit yi ñoo ci majorité muy gën jànneewu quatre-vingt pour cent ñu ngi wax quatre-vingt-cinq pour cent euh, lay seen demande sociale mu mel ne waa minorité moo leen réussir kon war nañu seet seen bopp seet ba xam fu ñu toll ci lii nga doon wax fu ñu ci toll ak ak ju leen réew ak dëwaal bi ñu war a def ci réew luñ ko seetee kon day mel ne danoo war a yaru nun ci biir lislaam ba noppi booloo nekk benn ñépp bàyyi par parloo lislaam bépp nekk benn ndax lépp lay xam ne nekku ci gis nañ ne bu jógee am doole ci suñuy tànk la jëm te guddi ak bëccëg yéen ngi xutba yéen ngi waxtaan ci diine waaye seetlu nañ ne jikko yi day gën a yàqu kon nag yaa problème kon problème boobu war nañoo seet ba xam lu ko waral buñ ko fi mënee jëlee ñu jëlee ko fi la ca gën a néew mooy daal am na droit ci wax ci am na droit ci proposer ay solution am nañ droit ci jéem a seet ñu éradiquer mal bi nga xam ne mi ngi ne société bi kon boo ko seetee ci wàllu gune dafay mel ne tarbiyal islam boobu dañ cee am droit suñuy doom nu jéem leen jàngal ngir li nga waxoon ne ñaar yépp la war a ëmb muy àddina ak alaxira nu fexe ba suñuy doom walla génération bi ñëw kenn ku ne danga man imam da man président de la république yaakaar naa ne débat bi war nañ ko jëmale foofu te jot ñu seet ne jikko yi dafay gën a bon dem nañu ba di xeet sëriñ si lépp loo xam ne bu ñu ko waxee jàpp nañ ne parce que sëriñ bi ni ma koy waxee ba ca gën a tuuti bu yëkkatee baaraamam bu sew mbooloo koy topp te ñu leen joxoñ mukk fu bon fu baax la leen di jëme ci sunna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi la leen di ci liggéey la leen di jëme ci jàmm la leen di ci wax lu baax la leen di jëm kon ñooñu mën nañoo bàyyi xel bu baax a baax te lépp loo xam ne itam amul dimension spirituelle madda lay doon maanaam matériel lay doon te matériel boo ko seetee topp ko ba topp ko fi lay jëmee mooy course effrénée bu jëm ci seen xaalis te du ànd ak sentiment du ànd ak yërmande du ànd ak labirante yi nga waxoon léegi du ànd ak solidarité fa mu jëm mooy individualisme te fa mu jógee xam nañu ko seen civilisation civilisation bu ne gis nañ nekk moom nit ñooy yem day juddu di di nàmp di raam ba mu yàgg mu ne waxi daw màggat dee te am na civilisation yoo xam ne foofu lañ toll kon ñun bu ñu copier loola schéma yooyu ñëw indi ko fii dëppoowul ak suñu réalité loolu yaakaar naa ne aussi war nañ ci bàyyi xel kon loola du doon ñu dëppoo ak tarbiya yu kon état des lieux war nañ ko xool bu baax parce que dañooy am fursatu sariya sariyatul fawt ba ci occasion dafay gaaw ci dem te balay dellu si day yéex kon am nañ occasion bi war nañ ci mën a waxtaan ndax ku mel ne soxna May ay visionnaire lañ xoolal ba muy xalaat ndaje mi mu jëm ci nii ci mbaax gi ci guddi gi nga xam ne yàlla moo ko ko tëral bu doon lu ñuy jëkkante la mën a dañ koy jëkk teg ci loxoom muy lu amul fenn muy weer wi nga xam ne wax nga ko ci la ñu ci alquranul karim ci la guddi gi nga xam ne moo gën guddi moo gën junni weer kon loola mu fexe ba jagoo ko moomoo ko te jaarale doomu aadama yi fa ñu war a jaar ba egsi fii te booba yàgg na te booba réew mi yàqoogul yi kon kooku amoon na gis-gis ñoom def nañ seen wàll mag ña fexe nañu ba dugaloon ci senegal mu nekk ci àddina bi benn ilo de vertu dans un monde en ébullition kon alhamdulilah en terme termes fexewoon nañu ba Sénégal am jàmm joo xam ne fi ko waroon fépp daanaka amuñu ko te loolu bu ñu ko wéyalee mu wéy te ñun ñooy génération bi nga xam ne ci ñun la mën a jaar ñu mën a jottali lan jotoon ñu jottali ko suñu génération yi nga xam ne dana ñëw ngir suñu réew mën a am jàmm waaye lii raam ci ñeg bi la jëkk la jëm fekk fukki at su fekkee rythme bii ñu gis nit ñi di ko rafle di ko boo xoolee économie réew buñ ko basé ci économie bëre ak fecc boobu économie jëmul fenn nga xool culture ba lépp ña ngi ko jële ci jéggaan yi lu jóge bitim réew foofu bu fekkente ne li ñuy wax le rendez-vous du donner et recevoir booy dem foofa lan ngay yóbbu loxoy leen donc lenn lu dëppoo ak réew mi loo xam ne ñu koy def amul ba ci domaine alimentaire la ngay bay sax bëggoo ko lu jóge bitim réew nga gën a bëgg loolu musiba la bu ko defee ñu dugg nag ci loo xam ne dañ koy tuddee liberté lu neex waay wax te loolu libertinage la euh, Europe li ñuy wax ne ñooy démocratie modèle la boo xam ne moo leen arrangé moo dëppoo ak seen modèle de société mais Sénégal dafa am ay réalité aussi dafa am ay réalité te Serigne Touba indi nañu ci lislaam loo xam ne nit ku ñuul amu ko woon mooy nekk ci ab Serigne. ndax dafa wone ne lislaam ñépp la fi nekkal jëmul fenn jëmul fee rek bàyyi fi kon loolu yépp war nañ koo seet soxna si lii nga wax ci politique bi loolu it visionnaire la ci woon lu tax politique ñu bëgg ko def l'apanage de certains certains intellectuels poignée d'intellectuels ñoom rek ñoo sañ a def politique ah kay su fekkente ne politique mooy li ngay wax doo ko def li ngay def doo ko wax loolu jaru ko te ñi koy def dañ leen fee war a génne seet nu ñu amee ñu def politique bu sell boo xam ne moo mën a doxal réew mi te bu boobaa citoyenneté bi kuy citoyen rek am nga droit dugg ci ngir mën a nga mën a defar sa site parce que defe naa ne le mot citoyen ci cité la jóge kon nga mën a defar sa cité defar sa réew kon loolu itam war nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp ñu seet ba xam kon li nga doon wax léegi bu gisee loo xam ne mënoo ko faj lu la naqar yi loo xam ne baaxul nga wax ca lu baax wax ca lu bon wala tere ca lu bon boo ko munta faj nga jël sa làmmiñ boo ko munta faj nga naqarloo ko kon yaakaar naa ne nii ñu doxale suñu réew sañ nañ ko naqarlu te organiser ko seet luñ koy saafara parce que des équilibres dafa am euh, am réew ñépp di fay impo nga jël ñi nga xam ne ñooy dongay daara te ñuy majoritaire euh, nga exclure leen ci li nga xam ne mooy budget national ñi nga xam ne du éducation nationale enseignement du français la parce que bu tuddee éducation nationale rek ñépp lañ ci boole ñu jël enseignement du français bi yéege ko ci 40 pour cent du budget national te ñañ ca ñu ciy jàng ëppale wuñ ci ña nga xam ne ñoo ne ci ndox daara la ña ngay fay impôt kon hmm. buñ ko maasale woon yemoon ko foofu réew équité dafa war a am équité nous sommes tous égaux devant les lois du pays loolu mooy li war am bu ko defee buñ ko séddale woon noonu yalwaan du am def li ngay def ba pare di fustiger yelwaan kenn waru fee yelwaan te richesse su pays yi ñun ñoo ko produire muy suñu impôt ñu waroon ko yemale ñëpp kon foofu aussi yaa problème li ñu war a def kon mooy jéem a seet pexe yooyu yëpp en tant que musulman yi en tant que majoritaire de ce pays ñu jéem a xool noo xam ne dinañ mën a am une société équilibrée boo xoolee un homme idéal moo fay ne nit ka nga xam ne ma war a doom doon doomu adama nekk ku nite ku jullite koo xam ne dana mën a defar addinaam dana mën a defar àllaaxiram loolu yaakaar naa ne bu ñu ko defee dana baax euh, kenn ku ne jéem ci dugal sa loxo ci biir réew mi ñu bokk ko tabax te xam ne bu yàqoo ñun ñëpp la yàqal bu defaroo ñun lépp ñu la defaru yàlla na ko yàlla defar kon Euh, xam naa bañ a mën a ko topp rek waaye dafa am ñeneen ñu war a wax ndax yàq gi bu ñu ko yàqee dafay niroog ña doon ña alxuraan doon wax laqad taxawu euh, al fitnata min qablu wa xalabu laka al umura xata jaa al xaqu wa zahara amrullahi wa kaarimun euh, yàq rek fu ne ñu yàq fa lëmbaaje yàq mbir yi defar mais suñu boroom mooy ñëw ak dogalam indi dooleem daf la ko neex bu ko defee loolu lam leen di opposé nga xam ne mooy ñi sëñ bi doon wax mooy fa muy wax infiroo xifaafan wa siqaalan wa jaahidoo fi sabilillah fi am bi am amwaalikum wa anfusikum fi sabilillah daalikum xayrun lakum in kuntum taalamun loola moo di kon lu mu néew néew ak lu mu bari bari kenn ku ne na jaayante ci alalam ak ci boppam jëmmam ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala bu ñu ko defee yaakaar naa ne danañ dugg ci société bu équilibré société boo xam ne jàmm rek a fay ne te Serigne Touba li mu prôné mooy loolu mooy njàngaleen mi mën naa yor àddina ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala